loolu mang koy ñaawlu tok ci côté Pikine la ëppee ñu bari Pikine dañ ma Pikine yëmbal fu nek woo nañ ma fa dima expliquer yu mel nii lii nag lu ñaaw la. alaykum wa rahmatullah patriote seet patriote leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen jox seen wàccuwaay di wax ne Sénégal mom mom léegi autorité yi dañuy tek am ñuy ñëw taxaw ne du fi amé wañi nañu suukar bitigi koñ yi nek Pikine japp yëmbal taxaw ne loolu du fi amé du fi amee ñu seetaan leen ci bu population bi ñooñu ñu ngi sonn pikin yëmbal fu nekk nit woowee na ma fa ne borom bitig yi liñ xewal léegi booy jënd kilo sukkër duñ la ko nangoo jaay duñ la ko nangoo jaay dañ la suukar cent franc ñoo koy takkee nu mu leen neexee nga xam ne minimum kilo suukar bi mën nañ cee takk njëgu mille franc loolu daa tege fenn nee na da ngay dugg juróomi bitig ñu naan la suukar amul cent franc moo am kilo amul loolu tegewul fenn. loolu tegewul fenn maa ngi alerté gouvernement bi xam ne wàññi nañu prix bi waaye nit ñi ñi ngi ciy souffrir pour jot ci waaw yat wi daa war a génn de yat wi daa war a génn ndax wàññi gi ay milliards lañ ci def ay milliards lañ def ci wàññi gi wax population bi ne wàññi nañu borom bitig yi bëgg a jël loolu ne wàññi gi du fi amee jël yeneen di ko def maanaam di jël suukar si di ko denc diko tak par takki 100 francs ak par takki 150 pour diko ko jaay ak di taxaw nan awma sougar dañu wara ag ci contrôler eh, yinne amul yinne wañi nañu ko ku ne awma ko ñu tëj sa bitik dootoo jaay parce que dafa am lo xamne da yomb bëgg di jaay nit ñi bu séré ngay indi bagage di leen ko jaay bu ne wañi nan ko ngay jema a denc bagage yoy da dafay wara jeex wañi gi ay milliards lañ ci def milliards yoy ñuy def nak pour mu baña nil ndax milliards sénégalais yi la milliards sénégalais yi la pour mu bañ nii niil faaw ñu contrôler leen yat bi génn ku bëgg sa kilo suukar nga dem jënd ko li ko maa bi wax ku bëgg sa liibaru suukar nga mën koo jëndi waaye wër fukki bitig ak juróom-ñaar doo gis fu ñuy jaay suukar ñu naan suukar cent franc am loolu tegewul fenn il faut gars yi ngeen doon ay patriote il faut ngeen doon ay patriote bu ne sukkar wàññi nañ ko ngeen gëm yàlla wàññi ko bu ne ceeb wàññi nañ ko ngeen gëm yàlla wàññi ko bu ne diwlin wàññi nañ ko ngeen gëm yàlla wàññi ko waaye di ko denc di ko xañ population bi naan sukkër cent franc moo am loolu maa ngi koy ñaawlu te ca côté pikin la ëppee ñu bëri Pikine dañ maa pikin yëmbal fu nekk woo nañ ma fa di ma expliquer yu mel nii lii nag lu ñaaw la